asalaamaaleykum am chers internautes 313 digital comme ni ngeen ko xamee nag entretien exclusive tey nag ñu daal di dalal suñu papa papa Lamine Ndiaye mën ngeen ko eh, ci cent 313 digital ci xalaatam bu rafet macha allah moo waral ñu daal di taxaw tey eh, ngir dem eh, fekki ko fa mu nekk daal di sekk ak moom waxtaan ci relation ci li nga xam moom mooy actualité politique bi ak li ni mel lépp loo xam ne rek soxal na leen dañ koy daal di waxtaan ak moom waaye laata loolu dama koy daal di jox kàddu gi rek mu di nunti que ñu ñuy bàyyi xel Papa Lamine nuyu naa la. Ah, ma di la fay profité ci nuyoo bi mu nuyu. Mhm. jébbal sama nuyoo tamit askan wi dalee ko ci suñu kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa euh, jamono yi. Mhm. ñoom ñëpp fàttewuma ci kenn waaye nag bereel nuyoo askanu Sénégal ak waa bitim réew. parce que damay jot ay téléphone surtout sama doom bi nekk. aux mhm. États-Unis euh, di ma jox renseignement yoo xam ne nii très sincèrement. am na lu ma neex am na lu ma naqari. dëgg euh, ma wax ko ne ko nag boo amee bàyyi ju siiw yokk muñ. dëgg loolu am na solo mi ngi doon rek moom lañ daal di dalal fas yéene euh, seq moom li nga xam ne moom mooy waxtaan papa comme ni nga gisee rek situation bi dëkk bi jaxasoo nag linimel ni yow ban jàngat nga ci def rawatina ci wàllum politique beeg euh, li ni mel. jàngat bu njëkk bi mooy ñaan jàmm. Euh, parce que jàmm moom lu mu la jaral rek euh, war nga ko def. dëgg la waaw parce que actualité bi nag rombul tout simplement troisième mandat bi. waay. man mii ànduma ci. Mhm. waaw dañuy wax dëgg rek parce que nit fii moom jamono sax yooyu wees nañ ko. dëgg la mais kilifa de daan xas te la mu xas moom lay def. waaw buñ daan dem di xare ji. Mhm. gis benn ëkk bu ñuy teg. ci suuf ñu jël benn xaaj samp ko ci dëgg la dafa mel ni da ngay waat donc boo ñëwee da ngay simpi ne man de du doomu diw soqa ko ci diw eh, ak nangam ak nangam yëpp wax fi nga jógee sa cosaan ak lépp fa bokk wax sa tur daal di ñaan eh, ñaanu wolof lañ ko daan def mais ñaanu ceddu la woon dëgg la lii de su ma demee ruus naa di dellu si fii ak bakkan te defuma lii ak lii ak lii maa leen di giñ ñel ne mm-hmm. eh, lii ma wax mm-hmm. bu soobee kii may mm-hmm. danaa ko def te moom lay def sax la parole est sacrée waaw kay xatti dóor loolu mooy won nii la parole est sacrée dëgg la boo ko xasee ba wax fii xëy na nag jamono yooyu ak léegi day tan am tendance bu wàññeeku ba nga xam ne lii nit ñi dañu mujjee ci euh, nañ ma baal ngir yàlla ci naafeq ci mm-hmm. fen mm-hmm. ci loo xam ne nii vraiment dafa jekkul rafetul ci doomu gor waxatuma la kilifa mm-hmm. surtout nag kilifa boo xam ni euh, réew la la yàlla teg ci sa loxo mais bul fàtte ni lu mu teg sa loxo lépp loo xam ne nii teg na ko sa loxo wala mu def ko sa dund bés dina ñëw mu xëcc yëpp rocc ko. parce que da koy joxe ci keneen. Mhm. loolu rek mën na jàngal nit ñi démocratie boo xam ne bu ñu wekkoo ci yàlla rek jarul sax ñu seeti feneen rek loolu lu yàlla joxe lu muy jëlaat la. Mhm. bu la jëlaatee nga jàpp ci yàlla mu la ko joxoon. dëgg te xam ni dund gu jeexul lu nekk xaj na ci. Mhm, mën nga fa jóge yàlla yóbbu la ci yeneen i sphère yoo xam ni danga nga fay nekk nekkat kilifa goo xam ne mooy dàq sax. président de la république. dëgg parce que coono gi nekk ci présidence de la république. ak bis bu ne dossier yi ngay traité. te mm. dossier boo ci traité lu coow lay topp mbambaleeg loolu ñii contre la fii. ñii ànd ak yow mbel mbel bi bari. man loolu boobu ñaan ma yàlla ci addina mm-hmm. yàlla di ma jegeloo sax présidence waxatuma rek na may jël. Mm-hmm. loolu du ko. on dirait ne euh, wax waxeet dafay nekk loo xam ne. Euh, euh, baaxul voilà lu ko def. parce que gisoon nañ ko ci l'islam sax daf ko tere. boo la waxatuma la mm, ñu seet ba xam ne gam gor nga wala doo gor. Mm-hmm. danaa wax du ma wax. waaw nii wii nii non. la. barki démb bu Paris boo xamee ni fa ngay jóoru xam nga ko. wax ko benn barki démb bu Paris mi ngi wax militant mi que ne leen euh, déglu leen ma sama message euh, te liggéey bi ma liggéey fi Sénégal euh, dina mooy ci li nga xam moom mooy pouvoir bi après 2024 yooyu les propos la tenir daal di indi benn confusion ci boppu askanu Sénégal. gis nga yooyu yëpp. Mhm. guddal jël la. du romb dëgg du romb nopp. dëgg la. mbir daal. Mhm. waxuma sax loo ci waxoon. la mhm. mais la nga waxoon yëpp yàlla moo la permettre liggéey yooyu ngay lim yëpp. Mm-hmm. nga def ko moom mu accordé la ko nga kii la ñu xam ne yow wàcc nga fi daan waaw ana ñi fi jiitu woon. Mm-hmm. ana Baye Senghor. <laughs> dëgg la jàll ci ab Diouf. waaw jàll ci Ablaye Wade. Mm-hmm. mi nga xam toog na ñaata at. vingt six ans. waaw hmm? tey moom moom la. ñu baal ma bu mu tuddul tur bi parce que fii moom loo wax moom. bu ju déggee turam rek. ñëw ci ëllëg sa jël si la. ok dafa mel ni lu ñu xewal. te loolu jekkul rafetoon. doomu gor yu bari ñu ngi ci prison yi euh, mais pour lan la wax yoo xam ne yu ñàkk fayda la yoo xam ne jarul sax dóor sa doom malheureusement réew mi comme ni nga ko waxee euh, arrestation arbitraire yi bëri na ñoo xam ne dañuy wax euh, jëm seen kàddu jëm ci réew mi ñu daal di leen di ràpp tëj te ci boobu la jamono am na ci ñoo xam ni ñu ngi incité ñu ngi def incitation au te pourtant ñu ngi doxi seen ay soxla. deux poids deux mesures ak yeneen ak yeneen yoo xam ne jarul wax ci kii parce que moom. Mhm. Euh, gunge yegg ci baaxul. mais ñoom ñu nekk ci loolu ak yi ñu jëf loolu. Mhm. xam nañ bu baax wax ci yomb na tekki. parce que yaa ngi ñëw fekk télé bi. waaw vidéo bi ñu génnee te ñuy wax naan xawaan moo ko génneeg yooyu. Mhm. Euh, Juan maa ngi ko doon seetaan fa cosaanoo Espagne la yooyu. tout ça la suite aussi mu jaar fu bari ñu France. ay woy juróom ñoo fa indi. mu consacré toute sa vie jàng. Mm-hmm. te li mu jàng lu mu xam la. dëgg la. lu mu xam la lool lool lool. luñ ko mën a trimal tilimal naan ndaw la ak lii la xam-xamam ñorul ak ak lii nañ moytu. nañ moytu waaw. parce que nit la ko xam ni man sept cent nangami dossier mi ngi ko yore. te lépp mi ngi jëm ci nga xam ne nii jot na fi xew. donc ku mel noonu nekk CPI encore. Mhm. mu cour pénal international nga xam ni ba ko Sénégal di ratifié. Mhm. yàgg na lool lool lool. dëgg mu war jiitu ci ñi nga xam ni dañ koy respecté jox ko cër. Mhm. mais aux yeux des il y a des personnalités yoo xam ne nii dañ koy négliger ak di ko kii naan mm-hmm. loolu kii wala. ndax Sidi ndax Sidiki Kaba ba pare am na loo xam ne nii métti na ma. métti Sidiki Kaba voilà. Mm-hmm. Euh, bu dee benn nit bu dee sax. Mm-hmm. je crois que lu am importance la. dëgg la su mel ni fukki nit ñoo dee. bu xaar ba mu yàgg ci fukk ak kii lu mel sama mbokku bambara bi moom xam na boppam mais naan. li dee. matul dem matul foo dem voilà pour dem ci pays dem ci ces pays ak yooyu. Mhm. yooyu on dirait que dañoo minimiser li nga xam ne moom mooy. moor yi fii am au fait mais loolu ma delloo ko baatu wolof bi bu dër jël la. waaw benn dee rek mu ngi mel ni fukki nit. dëgg la. parce que doom bi nga xam ne nii gaañu na ci lu sax ci xol la. loolu am na. waaw boo respecté woon nag moom. at ngi ko jur indi ko ci àddina nga xam ne amal na leen njëriñ. dëgg la te mënunoo doon leneen peut-être même président. de la république bu Sénégal. Hmm. léegi xañ nga ko Sénégal xaj ko ay waajuram. dëgg waaw loolu moom ba kañ lay jeex. ndax dañu mën a rey ndaw yëpp nga xam ne nii kii nii parce que ndaw yee topp Sonko. Mm-hmm. non mais attends. mais ñii di wax que ne amul qualité amul capacité euh, yóbbu leen si pays on dirait que ne ne la guddal jël baaxul ci mbir yi mhm. mbir moom dëgg du rombi nopp dëgg la te du kenn du gis weer wi naan non man gisuma ko wala ñàkk ko bañ a gis mhm. ngir bañ a woor wala nga mais tabaski kenn du ko tëb xam nga. déedéet. <laughs> moom mosu weer weeg yàq bari weer gi. Mhm. dem nañ sax ba léegi science léegi dugal nañ ko ci pour bañ a indi ay wérante. Mhm. nga xam ne dañ ci dugg ci science bi rek bu ñu nattee daal di wàññi xam ni weer wi jamono sàngam war na ci génn. Mhm. donc ñooñu yëpp ñoo ngi koy wut ay pexe la l'islam terewu ko. mais quand li li li ne juux ci sa biir réew mhm. nekk dëgg ko xam ni firnde la ñu indi firnde yi teg ko comme euh, numéro 9 boobu ñu génnee numéro nga xam ni wan fii laa gisee affaire yi dëgg na ko tubaab yi génnee ba ki waruñu woon xaar sax ba tubaab yi di ko génne bu la fa mhm. amee nañ ko ñan nangu rek mhm. te xam ni lay pàq la mais dañoo wax que ne ñooñu noonu euh, Aïssata Tall Sall ministre bi nga xam ne mooy dénk ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur mi ngi wax que ne euh, ñooñu noonu ay manifestants yu doon tiré ci kaw manifestant yi loolu nan nga jàngate yooyu la kàddu. non sama jigéen la. Mm-hmm. wallahi ku bëgg la sax. respecté ko lool parce que loolu dama ko sénti moom gis ko ci. Mm-hmm. mu jox ma ko parce que man dama daan liggéey Sorano. su ma daan dem yàlla dafay def moom ci otoom day dugg. man fekk sama taxi ma maa ngi ci. mais rombante ci corniche bi lay doon mais bu may xool rek daal di ma tàllal loxo nii surtout que nag mu xamal ma won ma ne ma elle est capable pour jouer théâtre. parce que gis naa ko ci film yoo xam ne elle jouait l'avocate. Ouais. donc euh, loolu daf may gën a rapproché ak moom. Mm-hmm. mais euh, njuumte moom xam na ko rek. Mm-hmm. li mu wax noonu. wallaahi xam na ni juum na. dëgg la nga mais nag bon am na quelque fois yoo xam ne nii. Mhm. Euh, boo duggee ci yenn yi euh, dana diis métti lool nga ni dëgg kat nangam nangam la. mais ku ko xam xam ni que c'est une femme kenn tollu ko fii nag. ok moom gisul leen xamul leen. Mhm. parce que xam na politique nag. parce que parti bi nga xam ne nii moom la nekk mhm. moom la nekkoon parce que léegi mhm. parti boobu li yàlla xam doy na. li si nekkoon ñu si bëri. mënoo fa dugg te jaaroo ci école du parti. du parti. Mhm. donc kooku dalay indi formation boo xam ni très politique. bi nga xam fi ngay jaar boo nasee puso boo àndul ak wëñ di nga ko xam. boo ànd ak wëñ di nga ko ñaw ñaw boo xam ne nii mën nga def rombal mbaan mën nga def la neex ci loolu. foofu moom politique moom du la jaaxal. parce que ñu fa jaar ñëpp am nañ une bonne formation fu ñu waxee ñu ràññee leen. ok dégg mhm. nag dañ leen di jàngal ba jàngal leen naka ngay affronter euh, benn public bu nekkul ci lii wala ci laa. bu mhm. double nag avocat bi mu doon. xam-xam bi day yokk ci moom. ba nga xam ni nii nañ ko xool comme quelqu'un boo xam ne nii euh, dafa traité benn dossier. Mhm. ci benn cour de justice. nga xam ne nii day défendre dara. dëgg la mais loolu donc day nekk benn genre ADN boo xam ne nii même bu waxal ni sax bu xamee ni kii tooñ na awukaay loolu la ñu def. dañu xam ne yow tooñ nga ñu génn la ci tooñ boobu. ok mais li mu wax noonu est-ce que c'est cohérent en fet manifestant yi. non man fi ma koy féetalee. xam nga mhm. politique dafa jafe. boo ko jëlee comme justice euh, dafay doy waar. Mhm. parce que ànd nañ ànduñu noonu la mel. Mhm. donc. Euh, da ngay natt boppam xool ko ci métier bi nga xam ne ci la nekk. Mhm. te xam ne dafa am une cause bu muy défendre. te war na ko sax war na ko défendre. Mhm. mais terewul mu ràññee ni moom li mu wax ni da doon défendre rek. mais lii dëgg moom xam na ko. ok ay set non mhm. liy dëgg xam na ko de. Mm-hmm. lii dëgg ah, xam c'est que lii moom dossier la boo xam ne nii. Mm-hmm. yàlla xam doy na moom xam na loolu sax. dëgg la voilà ba léegi ci mbirum CPI boobu lépp parce que Juan Branco eh, tamit dafa euh, annoncé ab plainte jëmale ko ci président Macky Sall jëmale ko ci Antoine Félix Diome Jean-Ramé Moussa Fall parce que. Euh, jàpp contre voilà con. Euh, merci beaucoup crime contre l'humanité ah, la leen daal di vidéo yi maa ngi koy seetaan effectivement donc voilà. Mm-hmm. dama wax buñ ko xeeb. waaw parce que CPI boobu mu leen yóbbu. xoon mm-hmm. dafa am d'abord lu ko njëkk naqari. Mm-hmm. gis nga avocat yi nekk fii dañu génn dem France nu mu leen waxee dem n'importe quel pays di fa plaider yi. loolu euh, dafa nekk loo xam ne dañ ko dëggal bu ñu ratifier ko. Mm-hmm. waaw nga xam ni tamit loolu buñ ko defee rek war na nekk kenn waru ko woon dàq. manu militari du Sénégal parce que dafa ñëw pour défendre. dafa ñëw pour client donc euh, loolu. erreur la bu dafa ré dafa am lu mu réveillé au fait. mais loolu mais moom ci tubaab boo ko xamee dëggantaan buggul ko jànni bëggul nga tuutil ko. Hmm. surtout mooy ndaw dana ci xeex teg ci tànkam ba nga xam ne nii lu mu xam ci dossier yi dina ko génne. moo waral sept cent et quelques il faut faire très attention. Hmm. gis nga. ngay daas paaka pour jëmale ko ci xar mi rend ko mhm. un jour paaka boobu ngay ngay rendee boo muccul moo lay rendi ok ko mhm. kenn xeeb de moom xuwaan waaw waaw parce que mhm. nekkoon na CPI waaye nekkoon na fa waaw donc euh, tu vois man je suis ba nga xam ne nii bu ma ci poser question pour que demain ma mën ci tontu loo xam ne nii du dugg ci erreur wala di nas yoo xam ni Euh, li yàlla xam doy na. voilà dañoo gis ni am na ci ñenn comme ni ko waxee. xuan buñ ko xeeb am na ñoo xam ne moom xeebuñu ko parce que gis nañ ku yëkkati woon kàddu ne euh, nañu euh, dossier Ousmane Sonko bu jëree ñu rey 90 pour cent des sénégalais nañ leen rey après mu ñëwaat kooku ne waxul woon loolu même si foo la daal di wax maanaam képp koo xam ne waxoon nga incitation defoon nga incitation crime on dire que da nga avalé waat say ay say ay propos. bañ dem ci pays dafa loo xam ne nii. Mhm. nit dana ko wax mu leer nañ nopp dégg ko. Mhm. bu ko nopp déggee dañ naan nopp day lalooti na. kaka eh, wax. Mhm. respecté naa ko trop. mais moom it dafa def erreur. Mm. de com. ok pas parce que journaliste la rek euh, dafay aay ci communication. donc wax jooju mu wax. bu doon tey dina ko dindi bu baax a baax. man duma formaliser ay affaire moom peut-être dina wax nii man xaw ma ko. mais ni ma ko xamee sax bu ma ko xamee woon. Hmm. dana xam ni man je n'invente pas. pour rek wax. mais mhm. dafa jekkul ci réew ngay wax naan centage nangam nangam. dañ ko waroon na rey. Mm-hmm. pourcentage nangam ñu bàyyi la ñuy yow doo yàlla doo yonente ba. dëgg yow yee am pourcentage booy kii. Mm-hmm. tey moo dem waxtaan ak yàlla pour yàlla wax ko ne ko bon <laughs> tel pourcentage naa ko rey tel bés pourcentage nangam. comme ci ay pourcentage la nekk. yooyu li ngay yéene. sa mm-hmm. ko sa morom. fii kenn bëggul Sénégal takk li ma gis ci vidéo fii ci gerte civile ci yeneen dëkk yi. Mhm. mais ump Sénégal umpare wu ko de. xam nga liy yoot nag di ñëw. waaw tànk fii. Mhm. duñ ko gëm duñ ko xam. mais bu ñu xamoon na muy toll ak yi muy indi ñàkk bi muy duy ci kii te li yàlla jox ñu yëpp ci koom. mu feeñ fii ñu war ko yitteel. Mhm. farataal ko jublu ci mën a toog indi la paix suñu biir. pour que Sénégal mën a jëm kanam. Mhm. am loo xam ne njëriñ la suñu borom mook ko fi dugal. ñuy xinte leneen wala di omat seytaane moom mi ñuy euh, xëccal teraanga. ñun ñuy omat seytaane. man jàggat boobu laa am quoi. ci biir mhm. bon ci nekk nag ak ñi ñuy xëcc pour seytaane. Mhm. wata wat <laughs> nañ moytu daal. la seytaane moom bu duggee ci ci bi sëriñ si ngay seetaan fii yëpp dañ naan Sénégal ay rab yi ñoo fi dugg si. dine yaa ngi fii eh, waaw pour alerter rek dëgg la mais barab yu duggee fii mhm. yàgg na ok ah Kumba Bang fan la nekkoon mhm. hmm? te yemul ci boobu rek waaw les quatre communes yi ñuy wax foo ci tudd am na rabam mam Kumba lam mhm. day san sama xarit bi ndem si yàlla gi yàlla na ko yàlla yërëm amiin incha allah Pape Fall am na benn vidéo am sax bu mu yoree nen di woy di woy mhm. eh, boo ko déggee woy bi salsala ko def Kumba Làmba mhm. waaw eh, woy bu neex sax encore donc yooyu yëpp ci eh, rab yi fi nekk la te ci quatre communes yooyu boo weddoo dangeen war a def reportage dem ci ci lébu yi ñu mhm. wax leen ñu wax leen ba ci ñi nga xam ne nii bu ñu seet communauté yi nga xam ñoo nekk ci les quatre communes. Mhm. bu ci nekk am na rabam. ok donc rab du ren la fi kii la fi dugg. Mhm. te nag dafa am rab yoo xam ne yu baax la ñu ñoom ñoo omat Sénégal yi sax bu mu waxee dakaar a mhm. commencé par ça. ndar am na fa. voilà fii gox yu yore yi am rab bari nañ. donc mais bu ñu wékku ci nii dafa bari rab rek. ëllëg lu lu xew rek seytaane yi lu kii ñu ne rab yi. ñu ne la nangam nangam ak yooyu. alors que ñu ni neen la nañ leen bàyyi te defal leen seen i tuur. dafa am ay réalités yoo xam ne nii c'est des réalité africaines. waaw li ci war rek mooy nañ ko def ñi xam loolu dëggantaan nañu dem ci loolu def tuur yi. Mhm. ñaan ñoom sax ñoom ñu fi nekk mën nañ aar. dëgg la mën nañ aar gox bi Ndakaaru. Mhm. suñ leen tuuralee. dégg nga wax li ñu bëgg ci tuur yooyu nangam boo gisee ndëpp yi ñu daan def ak yooyu ma xalaat dañuy am dañuy fëkk loo xam ne. Mhm. xolu ndakaaru la. dëgg la jëmale ko nag ci foo xam ne nii dañuy yëngal xol yi. ba mhm. yee fitna. te loolu waruñu ko def. voilà mhm. maanaam yàlla mu ngi ñuy xëccal teraanga ñu ñuy xëcc seytaane.

mu ngi def effet bu baax a baax baax dafa mel ni soir jox na dëgg Ousmane Sonko. waaw Ousmane Sonko moom. Mhm. dama ci am bànneex sax di ci wax. ok parce que dama seq ak moom. Mhm. yoruma carte parti waaw mais raison réelle yi nga xam ni nii moo tax. Mhm. suñu diggante boobu. dem fii dafa nekk yoo xam ne très sensible la. cër ba mu ma jox. ba ñuy woowante goro mm. du ne man maa ko may sama doom wala kii dafa may sama doom benn xaritam mm. dégg nga te kooku toppatoo sama doom loo xamee nii franchement en toute sincérité maa ngi sant yàlla di ko gërëm mm-hmm. loolu mun naa ne grâce à kon su ma tawatee mu ñëw seet si ma fii. Mhm. c'est normal. dëgg la. bu ko Macky Sall defoon tey. billaahi wallaahi taalaahi mu tudd. loolu am na. mais nag Macky def ko leneen la ma def. loolu moo indi divergence bi. Macky lan la def moom xam na Macky lan la def. wax naa leen ko fii benn bés. Hmm. jox ma rendez-vous. Mhm. dama dinaa def lii. Mhm. te gisuma ko ba léegi. loolu demul ci xaalis. Mhm. man mii maa am benn projet boo xam ni man ak sama jigéen vraiment. ñoo nekkoon ci projet projet bi sax la taxaw ñu kii ko partenaires yi ñuy ànd gém nañ ko fi dugal. dañ ko jot ñun du ko may ok buñ ko kii pour nit ñi mën koo xam testé ko. Mhm. testé ba taxaw. léegi man may fexe pour rapprocher ko pour wax ko loolu pour Sénégal am loolu fii. mu war a indi ay milliards. ok ñu si toog ñu ngi lekk seen i milliards. Mhm. doo leen dégg mu ñu ne mbu wala mbaa. ok dañu bañ a tudd ko dëgg la mais yàlla xam na ni. kon seen divergence fa la jógee. fa la jógee ma njëkk ko wax na ko man daal bu doon sama sago ñu am jotaay. boobu dama bëggoon ànd ak sama sœur boobu la ñu ñëw mu wax ko parce que moom est mhm. technique. mais li yàlla xam doy na. ne ma su ma demee tukki ba ñëw danaa la woo woo kenn ne ko jël leen numéro après ñu woo ko. Mm-hmm. woowul ma yàlla nattu ko mu tombeek jamono joo xam ne nii soriwul woon korite mm-hmm. ah ñu gisante foofu le mm-hmm. simple fait que mu ko fàttali ko mooy. naka laa ko nuyu ba di ko baalu àq parce que c'est normal que mu baalu ko àq. dëgg la. bon citoyen sénégalais comme man ni ma nekk citoyen sénégalais mhm. te bu ñu jëmee ci loolu diine l'islam de citoyenneté la ñu indi teg dëgg mu ànd ak suñu diine mhm. donc euh, dama ko ne jëbb loxo rek na ko baal ma àq déggul sax baal ma àq mais tellement qui ko rappelle de ça dama comment gaañu woowaguñ na ba léegi ma ne ko non non excellence mhm. mu ne xaaral daal di gëstu gis keneen na ko kaay jël leen numéro il me refait la même chose jël leen numéro am. soo leen jëlee numéro am après. Mhm. dinañ ko woo. dégg ba léegi. deux mois et demi tabaski ñëw tegu ci. Mhm. il me refait la même chose. muy ñetti yoon. ok donc ma xaaraat ba at ma ci dellusi donc il avait le temps. munoo toog atum lëm amoo si jot. Mhm. alors ma ñëwaat encore korite ñëw il me redit la même chose. ok deux mois et demi tabaski ñëw il me refait la même chose ma waat ci ni kii dootuma dajeek moom. ah espérons bien que ne euh, bu amee kenn koo xam ne dégg na li nga wax euh, peut-être. non wutuma loolu. dëgg la je sais je sais xam na sax mhm. wax wax ji. Euh, fi ne nii. Mm-hmm. bay wees na mbuus parce que man damay jàpp benn yoon mais su ba xasee ba baax mm-hmm. dara mënatul tax ma dellu si waat ok ok seen divergence la jógee waaw maa maa koy cependant Mm-hmm. animosité doxal suñu diggante. dëgg la parce que xam naa ndax lu sëñ mu yore dëgg Sénégal dafay kii ci boppam waaw kay mun na loolu. Mm-hmm. mais ñi muy wax par exemple na ngeen jël téléphone am woo ko. Mm-hmm. ñooñu kay laa sikk man ni bon ñii donc xëy na peut man am na lu ma leen def ba nga xam ni. dañu boolewul ci ñi bokk si biir Sénégal parce que sañ naa nag wutal Sénégal loo xam ne di dugal ay milliards voilà te ñoom ñooñu sax mënoon nañ ci seddu xëy na am nañ ay bokk yoo xam ne buñ ko fi defee ñoom it dinañ mbir la woon boo xam ne nii Sénégal yëpp la concerné mënu leen toog fii bay jëf leen teg euh, sax dëkk yi ñu nga xam ne ñu ñu wër mm-hmm. te koppar yu bari lay dugal dëgg la billaahi wallaahi talaahi mm-hmm. man bu am Sénégal dama ko gën loolu loolu leer na nañ euh, page boobu tourné naa ko sax. dëgg la bëgguma ci sax dellu si. voilà mais papa ñu gis ne euh, ki nga xam ne li nga xam ne moom mooy dialogue bi dialogue national bi euh, tàmbali na ba daal nañ koy euh, clôturer mais ñu gis ni Khalifa Ababacar Sall ak ki nga xam ne moom mooy Karim Wade ñoom ñaar ñooñu de ñu ngi wax que ne ci élection 2024 yi dinañ ci daal di bokk waaye Ousmane Sonko moom ba léegi bokkam dañ koy lamlaame est-ce que dina bokkam déet alors que ñaar ñële lijjanti nañ seen cas bañ daal di ñu bokk Khalifa ak euh, Karim Wade est-ce jàppoo ne mën nañ ko def même chose ba lijjanti Ousmane Sonko aussi. da nga naan mën nañ ko. Mhm. mais comme defuñu ko. Ousmane wutul loolu moom ñu boole ko yooyu wala ñu seet ba xam ci yooyu. Mhm. moom wax na benn wax. Mhm. te man ci loolu laa gëm loolu laa wér ko. nee na fa budd gisul ku koy mën tere mu bañ a bokk. ok mais condamnation beeg nag. waaw mais bu dee neexee ñu condamné ko mais liñ ko condamné sax. Mhm. Euh, yaa ngi may juum doo ne condamnation. waaw je toujours ni ñi di ko wax mais mhm. lu mhm. M ne se prononce pas. effectivement donc. Euh, luñ ci mën rek daal moom daal moom jébbal na euh, boppam ñi nga xam ne kii. mais nañ seetlu nee nañ justice su Sénégal. wóoluwu ko. waaw loolu tax muy woote lan résistance résistance. Mhm. alors ku noonu day ko xool rek. Mhm. daf ko leer ni yàllaa ko samp te yàllaa koy dimbali ci li mu ne. ba ëllëg ñu bari dinañ waaru ci moom. parce que fa ñu yaakaaree ni Ousmane noonu la. ñoo ngi jum lu bari ak ñi nga xam ne il le traite de tous les noms. salafiste ak kenn xamul nangam nangam dafa war a jël réew mi am na ñu koy dimbali suuf ak nangam. Mm-hmm. ils ne savent pas kii est Ousmane Sonko. ok mu judd fu rafet. Mm-hmm. yàlla waxal ko fur ndax def na quinze années. Mm-hmm. ca la ko yàlla may wërsëgale ko mu war ci toog ñëw. mën def ni moroomu sénégalais mi. ndax ay milliards yi nii la doon jaar ci kanamam. moo tax tey nee na ku ci mën a gis benn fukki dërëm boo xam ne ni jël na ko ci xaalis boobu rek nekk taxaw wax ko. Mm-hmm. looloo waral Ousmane mu set mi mu sell mu dëgg mu dëggu mm-hmm. koy natt nag. imagine naa ko ne naan bu doon dox lañ soxla tey. Mm-hmm. yàlla ji dafa commencé di wicci wiccal wicci wiccal bokkul ak wis voilà ndax wicci wiccal bi mhm. mooy taw yooyu nga xam ne nii dafa sew te mënul la tooyal xam nga wis moom mën na la tooyal waaw bu soobee nag da <laughs> tey xeeb ñetti étape yooyu lañ nekk Ousmane pour imager quoi mhm. parce que moom euh, yoon mayuma sax may wax vraiment en profondeur. Mhm. ba génne ki mu doon nit ki mu doon. dafa am une partie spirituelle boo xam ni xamuñu ko ci Ousmane. est que mën nga ñu ko wax as tuut rek. non non non non posez la question de savoir. Mhm. lu tax gone yi topp ko. waaw nga jël image Muhammadu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba muy ba muy lislaam Makka. Mhm. coono ga mu daj fa mu jaar. amul kenn ko xam ni nii dëkk nga ci àddina ak doo na nga war a dëkkee dañuy mhm. gën a sopp ci yow na moom joxul kenn dërëm mais yàlla muy xiir nit ñi ci moom mhm. jaarale ko ci kàddoom ak yooyu Muhammadu Rasulullah fu nekk la jaar ak yooyu ay kàddoom da daan wax suñu jël xeer du ko sànni dañ mhm. ko gisee noonu waaw nañ ko gisee noonu waxuma ni du ko tëkkalewuma ko Muhammadu Rasulullah mm. dama ne li yàlla def ci moom ma joxe rek symbole ak image boo xam ni c'est pour que ni ñi comprendre ci misaal daal waaw euh, fa may waxi fan la waaw lu yàlla def la mm-hmm. nañ ko nangul suñu borom mm-hmm. waaw donc képp ko xam ne jóg nga pour yàq wala keneen yow yaay waaye du Sonko voilà euh, Karim Wade ñëw ne dafa daal di euh, luubal suñu 138 milliards Khalifa Sall ndiki noonu euh, papa ñu xëy un bonjour ñu ne léegi ñoom dañ leen di maanaam Khalifa Karim Wade dañuy réviser waat li nga xam ne moom mooy procès am pour xool ba xam ci loo xam ne kon ne woon nañ ko ba daal di koy génnee réew mi. xalifa Sall ñu tëjoon ko ci benn mbir ci wàllu xaalis euh, ñu tëj ko tey nag ñu war ne dañuy euh, modifier li nga xam moom mooy code électoral ngir mu bokk est-ce que jàppoo ne euh, dafa dafa am benn compromis bu am ci boobu la ko man du ma ko tuddee sax compromis. wala ko tuddee. mais singali la. Mhm. parce que su fekkee ni xaw ma nu ma ko tuddee ci woon sax en français je en tête mais je l'ai oublié. ok qui veut son chien. la crise de rage ok noonu la seen mbir demee ñoom ñoom ñaar ñëpp sax mm-hmm. parce que peut-être que ki fi ne bu woon kii xamoon na ay opposant yu véritable te bu ñu demee loolu fa yomb xam quoi <laughs> qui veut son chien la crise mm-hmm. le même cas avec Sonko qu'on a voulu faire mm. bon mais malheureusement affaire yi kii na ba pare nit ñi duñ toog mu daan ne mais lan moo jotale Sonko ak Macky Sall ba yëf yi nii foofu mooy wax. est-ce lu nekk opposant bu Farousse moo ta non non mhm. Sonko avait découvert des choses yoo xam ne. voilà ok genre malversation la quoi. impôt et domaine. waaw. Mhm. mu am ku nas bu soom dem au lieu mu ñëw ak kii bi mm. Sonko boo gisee ñu mu sell meeg mu kii bi. c'est partir de là. la loolu. tax na ba kooku dem doon yedd dong euh, président mhm. jubbanti ay waxam wax ko na ko kii dee boo ci jëlul pexe sa kaw la jëm dëgg la mhm. alors donc euh, comme seytaane moom waxul dëgg mais day junj mhm. loo xam ne nii mën na la këf ci xel ak xalaat nga daal di mer sa mer jël benn décret rek bind ko dàqul dàqul ko dëgate ko ngay dàqu <laughs> mooy ñëw taxaw mu mel fitna sa ko dëgg la donc euh, tu vois te yooyu yëpp ka ko def waroon na ko bañ def te xam ne ay sénégalais lay boole. effectivement. bu dëkk bi jaxasoo ni te tey bu tàkkee moom moom du ci deñ. la. donc euh, il faut savoir se taire. Mm-hmm. Euh, maa ngi koy ñaan c'est quelqu'un que je respecte beaucoup mais bon. Mm-hmm. nañ bokk Sénégal bi ñu nekk. waaw moo gën. ok te moo solo. Ah, ok kon suñu xaalis dafay naax saay noonu après. ah wala. <laughs> moom day. li yàlla xam doy na de. <laughs> doy na waar daal waaw doy na waar. doy na waar mais Pape ba léegi blocus bi mi ngi kër Ousmane Sonko. ba léegi ñu ngi ko barricadé. instant bi te tabaski bàyyi ni di ñëw nañ ko indil kayit boo xam ne dañ indil logique bu bloc blocus boobu et ensuite moo xam naa ko xel bu buñ ko tegee ci yoon je te jure du daw loolu. ok ci li ma xam ci moom. Mm-hmm. borom dëj bi mën na dëj dëjëm jooy ko nam nammul dara mm-hmm. te ku gëm yàlla la lu ñëw moom foofu la ko njëkk a placé donc il a l'habitude de dire à ses à mm-hmm. ne vous en fait pas dégg nga s'il va pour le Sénégal dégguloo li mu wax nee na bakkanam la ci teg bu ko jarale loolu koy am na ay yoo xam bu ñëwee du ko këf Sonko ba léegi tiitul ci liñ koy def la preuve biñ ko tëjee këram. waaw barricade ko lu mu def génn di football. génn di man lii man jàpp ma ko muy dara. Mhm. effectivement. ah donc xam nga les gens s'inquiètent. Mhm. mais je te moom nekkul ci cadre boobu. Mhm. ku gëm yàlla la ah. de deux bu ñu yaakaaree ni liñ koy teg moo koy découragé wala mu tiit ba ragal. Sonko amul tiitukaay. du koy ragal. li muy def nii def ci dem ba jeex ci takk takk takk parce que li mu wax c'est très fort mbir mi sama bakkan la ma ki yoll mais il a fait une chose très importante qu'on ne l'oublie pas mm-hmm. xoolal bi mu jógee fële def caravane la liberté boobu caravane wala effectivement fan lañ ko jàppee du Vélingara non Kaffrine Koungheul non Vélingara la non Vélingara rek kii na ko Koungheul lañ ko kiiwee mooy Kaffrine foofu noonu lañ ko jëlee indi ko Séné indi ko Dakar. waaw. Mhm. mais la mu wax ñoom def nañ ko te ko. Mm. mooy mu ne boo leen assure sama sécurité. Ah, ok danaa ñëw. mais <laughs> il a fallu que mu commencer déclencher. Mhm. Euh, caravane de la liberté ñu jël seeni i oto yu yëpp def ci essence dégg naa ci arrestation bi romb na foo xam ni nii fekk na gars yi euh, benn policier d' abord. ensuite benn gendarme moo ko arrêté. ci mhm. li ma seetaan ñu wax ko. bon euh, cependant. Mhm. mu def ko exprès. Mhm. Euh, bàyyi ba guddi jot mu wax leen kii ñi ko ci yëgoon ne il va bouger pour dem. éviter caravane bi ci boppam. jo eh, jàkkaarloog wala muy jaamaarloo ak ñi nga xam ñoo ngi di xaar. voilà parce que mu nax leen. ñoo ñu ñooñu tëdd di nelaw mu yolleeku ndànk ànd ak chauffeur bi ak keneen ku ko waxoon ne ko na ko yóbbu. ba café benn ak benn waaw ak benn garde du mm-hmm. ak ñoom dugg ci oto bi jàdd am fa mu jàdd ndekki fa ba suur. kon xel mu dal mu jóg daal di xam ne xel ni. fa muy dem ñoo ngi ko fay xaar. dëgg la par exemple groupe bi toppoon ko. affrontement dina am. parce que bu ñu dajee ko gos yi dinañ jéem a euh, gendarmerie leen di tere ñu jéem a bañ euh, lacrymogène yi daal di tàkk. Mhm. yëf yu mel ni tulleeg man bu ko defee dégg jàppante mën na am. te bul géntal jàppante boobu bu amoon tey. ñaati nit ñoo fay gaañu ñaata nit ñoo fay moom mu teggi leen loolu mm-hmm. parce que ba muy dem kenn yëgu ko kenn yëgu jot leen tàggu rek ne leen kii garde yi bëgg ko kii mu ne leen déedéet toog leen waaw tax may wax naan borom dëj bi mën noonu jooy dëjëm ok dégg nga tranquillement te coow du yëpp parce que bu fekkee ni Sénégal ko jaral mu wocc ci bakkanam moo xam ne ay pexem bu muy def mm. donc euh, Euh, je veux dire que coono la rek. nit daal boo xamee fi ngay jëm. Mhm. noppaloo sa bopp. wala nga dem fa ci ci ndànk. Mhm. dal ak tekk ak tey. Mhm. moom bëggul euh, parce que réew mi la soxla donc bëggul réew mi am jaxasoo ba nit ñi di reyante. dëgg la. kooku ça vaut la peine. doo bëgg dara ba pare nga ne man fii laa koy jaaree. loo xam ni fitna lay indi nangam nangam kon na nit ñi dal. bàyyi ko xëy na mën nañ ko accompagner nii parce que nag il a créé un parti il faudrait qu'on respecte ce parti là voilà Pastef dégg nga mhm. waaw fi mu nekk nii créé na Pastef mhm. mais kenn ku nekk fii yaa ngi sa parti te lëjëluñ la alors moom ren lañ fi la jël ak compagnon am donc mhm. genre single yi day day day feeñ léegi single yi bi ñu defoon kii fi jot président de la République ak Khalifa Euh, singali boobu la ñu transféré bëgg ko def si Sonko. ok Sonko bañ ne loolu du am. voilà bañu ci ba. ñetteel bi waaw kay. Mhm. donc yooyu nag. dañ ko war a ci dëkk bi quoi. voilà léegi nan nga gisee xale yi bëgg a woote ab manifestation ne euh, parce pour gi pour dem jëli li bu dem dindi li nga xam moom mooy blocus kër Ousmane Sonko euh, préfet bu Ndakaaru daal di gàntal euh, li ni mel kon buñ sàggandul Ousmane Sonko barricade yi mun naa ne foofu lay tabaskee ci bari maanaam barricade yi dafay nekk ba léegi. génne wu lay mhm. bu doon sagoom mu am liberté boo xam ne du mën a dem ba Casamance ci wetu yaayam tabaskee mais comme mbir yi demee nii yaay yaayam xam na mhm. waaw moom it xam na te de wax naa la fii léebu la ne la borom mhm. dëj bi mun na jooy dëjëm ba mu jeex te bakkan bi ci mm. wallahi fitna rek lañ bëgg a indi mais xam na fi muy jaar ba ñoom fitna boobu duñ ko bëggal du am ba mukk su amee rek na ma waar li ci des nañ ko bàyyi ci loxo yàlla parce que loo wax wax wax. dëgg bàyyi ci as tuut soo xam ne nii suñu borom. suñu borom moo mën a mottali ci li ci des. mais yal na ko yàlla taxaw ba nga xam ne nii en tout cas fitne gu ñuy wax bañ a yeewoo ci moom. Mm-hmm. waaw ñaanal ko jàmm ñaanal senegal gi jàmm. Mm-hmm. ñaanal askan wi yëpp ak nit ñëpp jàmm. dëgg la te ñu bàyyi jàpp tëj jàpp tëj. jàpp tëj. loolu mooy yëkkati xol yi nit ñi di mer dëkk baa ngi metti tabaski ji tubaarfukàlla macha allah. Mhm. man la ma daan def euh, daaw ak euh, yu ci bari sax duggatuma ci. mais dama xam ni bu jamono soppeekoo. da ngay soppeeku ànd mhm. ànd ak moom. donc euh, yooyu yëpp nañ may dal quoi. surtout loolu ñuy jaay économiquement parlant. Mhm. tey dafa rës ba nga xam ni nii. dëgg la daan jëndal sax seen mbubb yu soxna. yëf yi rafet na mais amuñu luñ ko jëndee. loolu yi tëjoon. dégg nga kenn mënul dem jël xaalis boo dencoon yooyu préparer sa tabaski comme ni di mu waree ci jàmm ak salaam. Euh, defe naa ni suñu yàlla mayee ñu julli. Mm-hmm. Euh, imaam yi war nañu xutma ci loolu. ci affaire fitna. Mm-hmm. xutba yi jëmale ko ci diggante yi. ni mu waree rattax ba nga xam ni kenn warul sonal sa morom. mais te l'islam daf ci wax bul yéene sa morom mukk lu dul jàmm ak salaam mhm. moom it mu delloo la ko àddina neex. Sénégal gi neex. Mhm. lépp daal di nar euh, waaw yàlla jéppewuñu fàttewuñu de <laughs> lim ñu ommatal indi mhm. ñun moom ñoo ngi omat ommat beneen buum di seytaane donc nañ bàyyi loolu dëgg la nañ bàyyi loolu mi ngi doon Pape ma ngi lay jaajëfal bu baax a baax l' émission tire à sa fin ma lay daal di bàyyi rek nga daal di euh, tàggoog suñu mbokk internautes yi ñu doon bàyyi xel ci 313 digital tàggoog dara lu dul rek dañ euh, mhm. dégg fi may waxee fan la dëgg la tooñu ma ci kenn mhm. xulóowu ci kenn dëgg jàmm soo koy nag man damay julli fii euh, trois heures quarante cinq lay jóg di ko wér di ñaan jàmm joojule mhm. mu sax ci Sénégal waaye ci diggante yi surtout soo ko ñaan ci réew mi réew mi mën na ko am mhm. waaye lay indi la yaakaar ni moo nar a am ci réew mi mhm. yàlla indi dal dëfal xol yi dëfal xel yi xalaat yi parce que xel ak xalaat teen lañu xol ci lay rool nañu xam fu ñuy dooree. xalaat d'abord ndax li jaadu na. gën na ci mm-hmm. Sénégal. Mm-hmm. bàyyi seen xel faram fàcce ko. Mm-hmm. pour indi euh, li nga xam ne nii mooy jàmm joojule omat ko ba mu ñëw. mais teen biñ koy dugal kay fa la xol jël daal di root. loolu bu fa rootee jàmm jàmm ji day bu ko day day day day day sax ci biir Sénégal. te ci jàmm rek dañuy kii. voilà. ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax jërëjëf muy nuyu ñëpp ndégte mm-hmm, la woon rek euh, di sekk ak yow waxtaan sa xalaat bu rafet macha allah di la ñaan rek euh, suñu borom daal di lay may gudd fan ak wér gu yaram bu baax a baax a baax gudd fan <laughs> ah, may ñu man loolu lay wax ak wér gu yaram bu ma ñaanal uh-huh. dama naan yàlla da ngay maas nun gi daal waaw uh-huh. parce que dama naan ko eh, nga may ñu <laughs> dëgg la gudd fan ak wér gu yaram ah ci képp kuy sénégalais dëgg la ah Mm-hmm. Euh, saxal ko suñu diine l'islam donte kon sax ñu mm-hmm. diine ñun ñëpp mm-hmm. mais mu saxal ko ci doomu Sénégal gu ne dëgg la donc euh, loolu moom moom lay faral di ñaan waaw boolu ci turu yàlla yi nag dëgg la xam ngay wér boole ko ci ñaan bi mais dafay mel ni bal dëgg la dëgg la waaw moom euh, beneen yoon dina ci mën a <laughs> jaar di ko baaxee ak suñu mbokk internet dafa xaw a gudd quoi dëgg la kon xam naa ne beneen yoon incha allah di nga ko baaxee ak suñu mbokk internet di nga xam ne euh, dañuy bàyyi xel à chaque fois si 313 digital di leen jaajëfal comme ni ngeen ko gisee nag tey nag euh, suñ papa Lamine Ndiaye la ñëw seet si woon ngir waxtaan ak moom ci euh, situation politique bi ku ne xam na ne réew mi jaxasoo nag tabaski beeg li ni mel ku ne itamit dégg na bu baax a baax li nga xam ne wax na ko mu nekk ay kaddu yu am solo kaddu yu rafet itamit la daal di la daal di yëkkati di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal sama cameraman Abdou Fall moom laa daal di ànd di jaajëfal bisu mi nekk ci réalisation bi aussi di leen joxaat dig daje dikk ci kanam tuuti ak yeneen i information d'ici là portez-vous bien et bonne suite des programmes